jëm ci wàllum entrepreneuriat kii jiite MEDES di président Mbagnick Diop ni ki démb daat nay wax ne ngir nag ñu daal di dox jëm ci wàllum émergence économique sociale culturelle ci réew mii di Sénégal il faut que ñu daal di koy jaarale si soppar ñi li nga xam ne mooy état d'esprit ndaw ñi daal di koy jëmale ci wàllum formation wàllum créativité wàllum innovation ni ki démb salon des startup daan nañu décerner lu toll si ñetti prix journal bi nee na ministre bu baax a Médès ci taxawaay bi nga xam ne daal nañu koy amee yéenekaay gi du L'Observateur Vox Populi Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien ñu xëy di ñu xibaar naan ñu administration pénitentiaire bu Sénégal niki démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi wax ci Pape Mamadou Seck mi nga xam ne moom la ñu wax ne dañu ko tëjoon ci kasu mu feebar ñu jël ko yóbbu ko pavillon spécial mu daal fay dawee ka Pape Mamadou Seck ci l'administration ci kasu bu Rebeuss si la ñu ko jël yóbbu ko pavillon spécial waaye nag ci guddik samedi juróom-ñeenti fan jàpp a kaay gi du l'observateur nañ ba maara détaillé ndax nee ñu jabooru Pape Mamadou Seck bi ba léegi jamono ji kenn mënu ko jot téléphone yéen a kaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñoom la ñu tegoon loxo doon leen joxar bi baaraam mu tuuma nee nañoo bëgg a salfaañi réew mi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci manifestation bi yeewi bëggoon a ñu daal ñu koy gàntal la ñooñee ñu doon woowee force spéciale la daf ci am kenn si ñoom koo xam ne génn na àdduna François Mancabou la tuddoo ñi nga xam ne na ñooy ay jege ñaale ma nee na ñu ñi nga xam ne na ñooy policiers yi ñoo ko daal di dóor ba yàq li nga xam ne mooy colonne vertébrale bi mu daal di am ñeenti fan yoo xam ne dafa nekk dans le coma maanaam diggante dund ak dee ndax kii nga xam ne mooy François Mancabou mii génn àdduna nee nañu bi ñu ko garde à vue ñi nga xam na ñooy policiers yi ñoo ko doon dóora waa Amnesty International waa Forum Civil Mary Teuw Niane ñoom ñëpp jamono nañu ba mara day taali ba pare nag di li nga xam ne mooy ab autopsie ak tamit enquête boo xam ne dafay daal di leer nañ ñi ñi nga xam ne nag ñoo ngi leen di tëj ci kasu bi wala ñu leen di garde à vue ñuy dee lim bi nag jamono ci ma ngi daal di yokk bu baax a baax journal bi di bés bi nee na certificat de mort bii nga xamante ni nag opital dar na koy wane ci François Mancabou nee nañu mort accidentelle la procureur de la République bu Sénégal démb moom tim janoona ak taskatu xabaar yi nee na François Mancabou mii nga xamante ni dafa génn àdduna bi ñu ko garde à moom moo doon mbëkk li nga xam ne mooy miiru cellule bi di mbëkk li nga xam ne mooy giri yi ca noonee si la amee nag ay gaañu-gaañu jaaree fa nag ñàkk bakkanam waaye loolee nga xam ne procureur wax na ko journal bi di Rewmi Quotidien avocat François Mancabou daat na koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee na négligence moo am ci ñi xam ne ñooy policiers yi te nag lii nga xam ne procureur wax na ko ne François da doon mbëkk li nga xam ne mooy miir bi ak giri yi loolee nag ñun dañu koy ndax nag li nga xam ne moom la ak njabootam wax mooy dañu ko doon dóor na en tout ne ñooy dee ci réew mi te a nag joxari baaraamu tuuma ne kii moo def googale ñaawteef maanaam ma ngi waaj a bëri lool ci Sénégal te nag li nga xam ne procureur wax na ko niki démb am na ay leesuuxu la journal bii di Vox Populi maître Ousseynou Gaye mi nga xam ne moo nekkoon avocat François Mancabou moom nag daat nay wax na lii nga xam ne procureur bi wax na ko teguwu la ndax procureur bi nee na am na nag a vidéo boo xam ne gis nañu ci François Mancabou di mbëkk li nga xam ne mooy miir bi te loolee danañu ko wane maître Ousseynou Gaye nee na nag loolee ci boobu nag mooy giraawaali nag su dee nag ma ngay mbëkk dañu ko waroon a arrêté ndax garde à la ñu wax lan moo tax ba muy mbëkk miir bi nañu def ba filmer ko lan moo tax munuñu woon koo téye journal bi nee ay mbokkam daal li ñu wax nee nañu nag moom François bi mu génne ci dans le coma maanaam dafa wax ak njabootama na leen policiers yi dañ koo wax na ko signé li nga xam ne mooy procès verbaux yi mu daal di lànk ba sa naajo ñu daal di koy torturer waaye nag ak njabootam nee nañu dinañu jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy waa cour pénale internationale nee ma waa CPI danañu jokkoo ak waa tribunal judiciaire bu Paris danañu jokko ak commission bu ONU ak bu CEDEAO yéene kaay gi di évidence nee na administration pénitentiaire bu Sénégal démb wax nañu ci kàppa Mamadou Seck waaye yeeyu ñu kenn journal bii di évidence nee na procureur niki démb wax na nag ci faatoog François Mancabou waaye tamit yeeyul kenn ma ngi ci yéene kaay gi di évidence yéene kaay gi de Le Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum campagne bi affrontement jàppante bu doy waar bu méttee métti niki démb am na ci waaye ci wàqi naan Nimzat ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ahmed Aïdara ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Racine Sy ñoo doon jàppante lu toll si juróom benn oto yoo xam ne dañu koo daal di yàq bëri na tamit ñoo xam ne am na nañu si ay gaañu-gaaño Racine Sy méeréem ba dañu koo caxte-caxte moom Racine Sy nee dina porte plainte Ahmed Aïdara yéen a kaay gi sunu làmb nee na combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Sa Thiès ak Rëg-Rëg du boo xam ne bu yomb lay doon Xaadim Njaay nee na Sa am na client boo xam ne du ko xam fan la ko yàkkalee ndax nag Sa Thiès amul benn sens ci janoom ak ki nga xam ne mooy Rëg-Rëg Xaadim Njaay ci sunu làmb nee